parti réew mi moo parti Sénégal yëpp ñoo yem dafa am ay instance am kilifa am ligne de conduite am ligne communicationnelle mhm. boo ci bokkee da ngay tënku ci loolu lu mooy dëgg man naa am nag tënku ci même boo àndut non c'est-à-dire je veux dire on a on a dans l'organisation du parti les structures nécessaires pour que conflit boo am ñu régler ko ci biir parti ah. am na ça je sais pas si je me su fekkee da nga am lu la naqari mënul ñàkk bëñ ak làmmiñ ñoo dëkk te dañuy féewoo mais ci biir parti bi am na ñoo xamante ni boo leen waxee ni lii moo leen naqari wala lii moo la metti ñooñu danante dox ay jéego co doo dem ci média di wax mënumaa kitaabu ni li ma nekk ci parti bi yëpp mosuma ci am lu ma naqari mais mosuma dem ci télé bi di ko wax mosuma ko bind sama. page jot na ci yéen. waaw c'est-à-dire que xam nga da nga ma ni membre du secrétariat national. waaw xam soo ma waxee membre du secrétariat national ci instance suprême parti bi la bokk boo amee loolu metti am nga sa kilifa muy président Idriss Seck am nga ay dendandoo ci biir parti bi ñoo xamante ni ils sont soo waxee li la metti ñu xam li la metti ñu waxtaane ko d'ailleurs loolu président Idriss daf ci daf ci tënku keroog ci ci suñu seminaire bi le samedi daf ci wax dafa wax ni foog ngeen taawee xol yi foog ngeen yaatal foog ngeen ubbeeku il faut que aussi ngeen mën di muñ yenn yi parce que boo amee prétention suba nga nga yor Sénégal am na benn comportement boo xam ne doo ko am mooy su rawatina nga tuddee sa parti réew mi xam nga man dama bokk ci ñuy jàngale parti bi ñu ci bari ci ñun di ay militants dañuy fàtte li tax ñu tuddee parti bi réew mi Idrissa nee na damaa wër Sénégal yónni ay ndaw ni leen laajal leen ma sénégalais yi nu nu gisee ñuy def politique nee nañu tënk enquête bi tudde ko période de l'écoute des sénégalais sénégalais yi ni ñiy def politique askan bi ñoru leen soxle askan bi ñoru leen quatre-vingt-dix pour cent des des enquêtes loolu la génn seen yittee bopp ak seen intérêt personnel moo leen ñor loolu la ñu tontu Idrissa Seck ci enquête bi Idrissa ni kon sama parti dama koy tudd réew mi pour que képp koy def politique dellu ci réew mi def sa yittey bopp réew mi def sa soxlay bopp réew mi bu jaree nga fàtte yow say sa trajectoire politique personnel su fa su jaree nga fàtte sa soxlay bopp nga fàtte sa bopp ndax réew mi loolu moo tax ñu tuddee suñu parti réew mi donc da ngay toll ci situation boo xamante ne ni yow loo am am dayo ci politique membre du secrétariat national membre de l'instance des cadres ak lu mu mënti doon ngay toll ci situation boo xam ni li Idrissa wax da nga koy jëfee ndax nag mooy sunu kilifa chaque pas que je pose est mesuré à l'aune de l'intérêt supérieur de la nation loolu nag ñun ci ñun bari nag ñoo xamante di dinañ ko dégg mais doxe ko mooy jafe